bëgg naa leen tey Sénégal dëkku Gaynde Njaay mooy sunu télévision ñu ngi leen di nuyu am mbégte dellu si ak yéen ci seetu mbégte ngir démarrer émission bi en attendant parce qu'il paraît que ki nga xamante ne moo doon animé Messi jet privé bi yegsi na mais rek Bessel Bass amee côté également maa ngi leen di nuyu di leen bàyyi ngeen nuyu lu bëree bëree di nuyu téléspectateurs yi waaye di nuyu nag képp koo xam ne rek yaa ngi seetaan waaye na ko waxee rek man de am na loo xam ne nee nañu lu amul seede daal baaxul man xam naa ne moom mhm. moo ko njëkk a sol métti waaw falaa londoor bi li ñuy def mooy ci kanam tuuti euh, ñu daal di xool ndax yegsi na xam naa bu yegsee gars yi dinañu ko wax mhm. comme sa copain la nag sa xarit la yow moom damay bàyyi rek bu yegsi nga dalal ko xanaa ci lii la dem xam naa mu ngi ci yoon wi ñëw léegi rek mu ngi ci yoon wi ñëw ah eh. la ilaha illallah. ballon d'or bi. ndeysaan oh, ndeysaan sant naa leen gërëm naa après ba de la xot mu yerte. ndeysaan eh, après ay ay saaga rek. <laughs> Eh, begente eh, eh, namante accolatante <laughs> alors félicitations <laughs> merci beaucoup waaye yaa ko njëkk a merci beaucoup njëkk a sol démb sol naa ko daaw njëkk a sol wallaahi <laughs> félicité bu baax et euh, di la wax ni jet privé bi la yóbbu eh. moo la andi ba ci buntu télé bi et puis ñu bàyyi la rek xam nga yow moom wax dëgg yàlla à chaque fois dañ lay félicité jël nga ko jëlaat ko jëlaat ko jëlaat ko mm. donc du loo xamante ne lu bees gracias euh, gracias euh, donte abro ba Thiès ah, de la gente salaamaaleykum <laughs> ñu leen di kontaane bu baax en tout cas bëgg nañ ci yéen bu baax a baax a baax di leen kontaane ci euh, tarkalla kontaan ngeen kontaan ci jël gi nga jël ballon d'or bi mais yéen euh, ki réalisé bu dee li tàkk nii sama veste bi da lay maa ngi lay jéggalu veste bi lépp ay kii la ay <laughs> payet la lépp ma ngi tàkk ah, di kontaan bu baax a baax di bég ci partenaires yi nga xam ne ñoom lañu ñu àndal waaye di kontaan ci euh, plateau bi tabarkàlla wax naa ne c'est le showroom mhm. lii la ñu wooyee seetu Sénégal mhm. lépp lu waaye di jaay bëgg mu jar fi nga koy indi lu ñuy wane bëgg mu feeñ fi nga koy indi mhm. maam raan yaakaar na ne bu ma yegg si yow laa fekkoon ngay nuyoo waaw maa ngi lay euh, day kontaan ci ci ci ndam li nga am ndax yàgg ngaa jël ballon d'or boo ko jëlaatee rek dana àdduna bulet waaye abaa li may laaj mooy Metz mii dafa am ay mbokki tëgg walla lan ah or bu fi ne ñu jox xalal la. <laughs> wante sax bu yemoon ci loolu mu neex. ah man de damaa mais gis nga Messi. Mhm. moom ak ay doomam. waaw Messi ak soxna soxna waaw. ci téyër bi rek. waaw Messi bi fa def. waaw mu mérite na baron d'or bi ah. <laughs> xoolal xoolal li xoolal li. ah <laughs> de comme ay grillade. non Messi yabaate. man day waaru naa man. munu sañse. ah comment ça fait. sol lii solo ko se xale yi tàmmal leen t-shirt ak ji nag Lacoste. ah kenn du na gisuñu leen de. Ah! famille bi kenn du na gisuñu leen. fu ah! ñu gis leen man Messi moom bëggoon naa fekkee bi muy doxaan jabar ji. li mooy li faatu la mel ah kaay labat. ma. Ah, ñaa xam naa doon xobar ki yàlla naa ko après doon ba Thiès. la xente eh, eh, eh may ñu faatu la mel labat nu may ko Messi te ñëwaat léegi yeggale. ayca mais lii ndax dinaa ko yeggale.